Bonsoir, très chers internautes de Guéjoin Info. Nous sommes avec le patron de la charnière centrale de l'équipe nationale de IV et par ailleurs défenseur de Aspire. Un garçon qui, qui, se distingue de par sa sérénité dans le jeu. Quand on le voit jouer, il nous fait penser aux grands défenseurs centraux que le Sénégal a connus. Il est serein de par ses relances, mais également précis au marquage. Moussa Ndiaye, qui est désigné meilleur joueur du, tournoi de par ses performances qui sont au-dessus de la moyenne. Donc, que nous avons Moussa Ndiaye, joueur équipe nationale U20 nekk aussi Aspire mu doon xale boo xamante ni euh, prestation yu mu amal ñu daal koy gis mu suñu xel day dem ci défenseur prestation yu mucc ayib yi mu amal ci bi tax na ñu daal koy tabb meilleur moom la jóge mu doon boo xamante ni également bu bu buy bi muy àndal ak précision bi muy ci marquage yi xel yi day dem ci défenseur yu mag yi Sénégal mu xam ku ci mel ni Pape Malick Diop ku ci mel ni itam Roger Mendy donc ñu bàyyi ko mu nuyoo présenté ak bokk internautes yi ngi lay ziar di Je eh, lay que famille affaire compétition euh, Coupe d'Afrique donc des U20 le meilleur joueur de ce tournoi avant tout bon bon sentiment quoi parce que tamit meilleur joueur quoi tournoi parce que sama bët am na fu ma ko teg te des na lu bari quoi am na kontaan xam nga man ñi ma bëgg na nañuy kontaan si man quoi sama objectif tu vois yàlla defal ma jàmm quoi incha allah ñu loolu ñu gis aussi bi nga bi ngay joué jamono da doon see comme meneur de jeu léegi au fur et nga dem daal reconvertir comme ak central reconversion boobu dafa doonoon loo am te ni yaa ko bëgg wala sa coach yi ñoom ñoo xool daal lay yóbbu foofu. si si FIFA bon ma nekkee fii maa ngi doon numéro 10 en même temps excentré mais ma demee fële après faire xam nga haut niveau là quoi tu vas jouer tous les postes vraiment faire n'importe quel poste la tu vas travailler dans tous les postes affaire yooyu loolu moo central on polyvalent là quoi mais faut me teg ma jouer waaw ah, son loolu n'y a que final bi démb donc à la séance des tirs au but euh, bi ngeen ñàkk final bi yow tamit ban yëg nga ci am quoi. si si métti nañu quoi parce que bëggoon nañ ko jël waaw métti nañ trop mais lu yàlla tuddu ma mënuñ si dara quoi parce que def nañ loo xam ne duñ ñëw fi di sëgg suñu bopp ñuy sëgg quoi mënul nekk parce que liggéey nañ loo xam ne amoon nañ yëg ak confiance boo xam ne mënoon nañ jël tournoi quoi te liggéey nañ ko loo xam ne war nañoo mën a dem ba lu dul coupe coupe coupe d'Afrique sax final mënuñoo jël lu ëpp loolu mais yàlla moo ko tuddee nii quoi di sant yàlla sant bu baax. waaw Moussa aussi ñu faral di dégg ñu lay duppee ngalax mu doonoon jour bu nag nekk ndaanaan boo am te tey géejuwaay yëpp xam nañ ko tur boobu lan moo ko andi. si tur boobu dafa yàgg quoi depuis temps booy depuis poussin quoi avec mon coach Aïdara waaw kooku tamit maa ngi koy remercier quoi parce que lépp lii lépp moom la quoi lii lii lépp ba may doon booy bal ma njëkk a dóor moom ko jox Aïdara yàlla na ko yàlla yërëm quoi waaw dafa génn àdduna commencé à lui mais fu nekk. maa ngi koy ñaanal fi mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jugee xam nga moom ma jàngal football. monsieur Famem xam nga lañ ñoo ko te du leen mus fàtte quoi lu ma am rek moom la quoi moom laa njëkk a pensé waaw avant tout. Ah, ñu gis aussi benn équipe euh, équipe bu suudee daal équipe boo am te ni tey mun naa ni euh, dañu njaxlaf ñu bëri loolu lañ doon wax tey bu ñëwee équipe bu organisé wu collectivement la mais aussi donc bu équipe bu technique. tey lan moo nekkoon secret bi. non tout staff bi la quoi d' abord parce que ñun bañ nekkee Asbir xam nga soo nekkee information, formation soo demee feneen doo sonn parce que même li nekk si bopp sax day uteeg yeneen parce que da nga leen raw si benn encadrement quoi ak Asbir tu vois foofu on travail, am nañ encadrement et tout moo tax du ma sonn fenn et suñu équipe parce que on était comme famille quoi ñun comme famille quoi par premier jour moo fa ñëwee premier jour laa dugganteeg ñëpp tu vois ñu ñu nekk ensemble di travaillandoo tu vois avec les mental coach yi di ñu ñaax quoi ñu àndandoo li liggéey ba yegg si fii waaw yàlla def li muy def quoi ñu koy santé xam nga di préparer après coupe du monde bi affaire yooyu yàlla may ñu si ndam foofu. waaw démb également mu nekkoon la première fois ñu daal leen mëne au score parce que mas ngeen gisee yépp donc kenn mënu leen mëne au score euh, ñu bëri doon wax naan c'est l'occasion ñu xool ba mu équipe bi am na capacité donc de réaction euh, bañ bañ mi-temps yi donc au vestiaire lan moo nekkoon le discours di coach ici, j'étais agressif parce que non le monde def pour nous réveiller quoi. Parce que nous, on a tout fait, mais 100%, on peut dire que nous avons une motivation. Parce que nous avons une doron, nous avons un qui nous donne Parce que Mali, nous avons une première masse, nous avons on a gagné, tu vois. Mais demi-finale, nous avons des métiers. Mais quand nous avons avec le discours coach, tu vois, avec les joueurs, après, nous avons un peu de quoi.

muy Ousseynou Cavin Diagne dem mu ñëw xaw a noyé tuuti bi ñu demee à la pause course daal koy génnee est-ce que psychologiquement euh, changement boobu bettu leen war a xaw leen affecté. non si football day am quoi football day am nit da ngay nekk tey sa match suba doo nekk si jour parce que il était bon dans les derniers matchs vois mais match bi démb bi xam nga ñëw na perte na conscient tu vois te instant boobu na nañu day gën a métti suñu c'est normal ñu réagir noonu. xam avec coach bi xam naa kii am tactique am quoi après moo tax mu changé deuxième mi-temps bi après si lañ commencé am suñu football bopp quoi daal bopp di jouer ba égaliser après ñu dem tiro bi wala on perd. oui à un moment donné aussi après égalisation ñu gis équipe malien yi tamit ñu commencé relâché wu mel ni dañu sonn quoi aussi di def ay changement jéem a conserver score pour yóbbu leen tiro bi instant yooyu lan moo tax jéem a leen tuer match bi accélérer seen kaw. si si on a accéléré accéléré nañ mais xam nga ak ak kiiw terrain bi quoi. terrain bi kiiwul noonu quoi du ma ko jël excuse quoi man ñun duñ joueur yoo xam ne dañuy nekk di jël excuse terrain mais terrain da ciy jouer quoi. pas soo regardé suñu match yu mujj yi suñu mujj ak démb bi du football du bokk quoi parce que cadre terrain bi quoi tu vois mais ñoom xamoon nañu deuxième mi-temps du yomb si ñoom parce que ñëwoon nañ di teg bal te ñun loolu moo nekkoon suñu fort suñu tegee bal bi jouer mais suñu critiqué ñoom loolu lañu mën. moo tax en deuxième temps bi ba coach bi ñëwee def beneen tactique am ñu teg bal si lañ commencé am problème après coup après match bi jeex ñu gérer ko ñu dem ba Syrie. oui léegi Moussa lan nga ñu mën a wax aussi ci parce que gis nañ donc euh, liggéey bi mu def ak ni mu mënee équipe bi donc ba vers la finale. non dafa excellent parce que di ba ma ñëwee foofu dëgg la maa ngi woon aspire aspire foofu am nañ encadrement yëpp lépp si football lañ koy jàng dañ koy mën c'est faussé. mais ça à lui quoi avec les staff ñeneen staff yu fa nekk parce que encadrement même chose la ñuy ñëw mu def si ñun beneen esprit quoi yeneen esprit gi ñoo ñaax c'est ma première fois ma dem compétition tu vois mais dama ñëw ak man taxaw ak man mais bu waxee man pare comme si que man j'ai fait des années tu vois mu ñëw impose sama jeu même yàlla may li may may quoi waaw bu loolu weesoo aussi nga nekk doomu géejawaay donc nekkoon ci équipe bi donc mën naa donc di porter le flambeau de géejawaay euh, doomu géejawaay yu bëri doon la supporter di nekk sa ginnaaw di la pousser tey loolu loolu ban sentiment aussi nga doon am. si si contenté quoi parce que ñoom dañu ma yéene jàmm quoi parce que li mu leen wan la man ñu ne ñoom nii la quoi benn la fii géejawaay ñu benn nañ quoi ñu jour yëpp dañuy déggante chaque instant. ay gaañ lañ dañuy jéem dañ amical yooyu presque ñu bëri ñoo jarandoo ay école de foot booy bi ngay dégg fii bëri tu vois ñoom tamit quoi ñu dem ba fekk si mu quoi en plus ñu liggéey quoi parce que tu ñoo nekkandoo fii di liggéey liggéey yu métti fii après yàlla def xam nga yàlla tànn li muy def mais maa lañ ñaan ñoom xam ñu gën ñu gën a liggéey quoi liggéey rek ñu xeeb ko yàlla def ñu fekkante fële wala ñu ñëw fa inshallah allah yàlla leeral seen yoon quoi loolu laa leen di passé message boobu. alors meilleur joueur de ce tournoi donc nee na distinction boo am te nekkul lu ndaw donc ñu bëri donc di la séntu fenn fi euh, ni boy bi ndaanaa la war nañ ko mën a séntu donc ci ci ci ci ci joueur yu mag yi instant yi amagoo benn contact pour euh, contrat pro. si si <laughs> xam nga mënoo def li te doo am ay contact yu bari mais xam nga man dama nekk si ay loxo quoi du ma tëb tëb jël sama décision bopp tu vois daa am si loxo yu ma nekk mënumaa ñëw dem contrat fii. fële ndax c'est pas c'est pas kii quoi parce que soo taal sa portable message bu ne ngay gis nit ku nekk moo lay message agent fii agent fee mais dama nekk si ay loxo quoi yoon si yoon laa nekk vois moo tax mënu ma ñëw jël décision quoi décision moom dama koy bàyyi ñoom quoi ñoom nañ def li ñuy def te nañ ma jàppale incha allah def mieux que moi quoi oui. na jàpp ni contact yi yi ngay recevoir bëri na mais instant yi amul benn décision boo xam te ne jël ko. non non jëlaguma décision daam ñu ma jiital quoi avant man. tu vois man mënuma ñëw jël décision man xam na laas fii la après ma dem def sama liggéey quoi tu vois la ma dem def sama liggéey parce que am na ñu nekk sama kanam quoi ñu ma jiital tu vois ñoom laay njëkk a déglu quoi lu laay déglu quoi tu mooy loolu moo tax mënumaa ñëw jël décision nii. waaw mais Moussa bu ñu xoolee ci anam bi ngay joué wax naa ko sànq donc surtout sa technicité parce que match contre Afrique Sud am na surtout benn action boo xam te bi ngay prouvé daal dellu à pour ñu reconstruire tey techniquement yow ban jour nga am teen tey moom nga jëloon kon référence di ko di ko imiter ba tey nga nga mel nii donc macha allah. si comme li ma doon wax rek maa ko si bañ taxee man su may seetaan football nekkul dama koy seetaan nii nii mais daa am lu may jël si ay jour ti vois mun naa jël si jour bii nii li muy def parce que jour différent lañ bokkuñu football mais ku nekk am li ngay rocc si moom tu fois ak expérience bi moo tax. moo tax technicité bi du du du du doo xam ne daa ñëw dama ko kii nii rek di ko tàndu nii dañ ko jàng quoi avant après fii la woon après fële te fee au niveau la quoi moo tax du du nekk lu métti si ñun quoi day yomb si ñun jib quoi parce que fee dañuy travail dur chaque jour on travail travail métti ba lii moom mérité la quoi mérité tu vois mérité la quoi. oui c' est important mais au niveau mondial donc défenseur centraux yi fi nekk ban défenseur boo xam te ne tey yaa ngi koy imité aussi mu nekk sa idole. Si, je préfère Koulibaly. Oui, je préfère Koulibaly. Parce que je regarde ses matchs. Je regarde les matchs, mais je ne suis devant la central. Mais si je suis suivre, su du koy suivre sama quoi tu vois Je suis parce que tu vois je suis un Je si lu bari te suis discipline quoi Je dafa discipline Je suis particulièrement à la à population guédiawayoise si maa ngi remercier ñëpp quoi di remercier surtout sama famille quoi surtout ñoom quoi ñoo tax may reyante nii tu vois sama famille fii xam nga rek su ma demee dem fu ma dem duma mës a fàtte tu vois di remercier tamit sama grand frère bi depuis booy quoi Mama Tall tu vois depuis xale daf ma jàppale quoi daf ma jàppale ba ma yóbbu vois. Voilà, c'est l'émotion. Donc Moussa Ndiaye sous le coup de l'émotion. xam je rek ñoom pas tax may liggéey quoi tu vois su ma pense surtout nyom quoi tu vois et puis ma mère tu vois su ko xalaatee ak temps moment ñu passé fii tu vois xam lu bari quoi daf may pousser tu vois bay si si liggéey su ma khalate rek tu vois damay damay jap kwa jàpp quoi sama frère yi ñoom gaa yëpp ay samay xarit ñoom lamp bo yëpp gaay yëpp ma nekkoon fii quoi tu vois su ma demoon bay bàyyi ñoom laay xalaat quoi tu vois dafa ñëwaat sama bopp ak sama famille dañ maa jàppale quoi parce que aw ma kenn problème di sant tamit benn sama course quoi course kaso parce que jàppale na ma quoi parce que même genre mas may def damay envoyé tactique yi quoi tu vois les erreurs fait tu vois erreur yi ma def yëpp daf ma koy daf ma koy signaler léegi su ma demee toogaa xoolaat sama bopp di gën a yokk coach boobu te maa koy sant quoi di di sant ma jàppale tu vois instant bi su ma limee damay juum quoi mais ñoom mën nañ see gis seen bopp ku ma tudd rek damaa juum tu vois maa ngi sant ñëpp nag tu vois. waaw bokk internet yi loolu moo doonoon waxtaan bu am solo bi nga xam te ne seex nañ ko ak euh, le grand joueur Moussa Ndiaye. donc euh, mu doon waxtaan boo xamante ne tamit revenir na ci aspect yu bëri donc tout au long de sa carrière fi nga xamante ne tey jaar na fa euh, te yenn fee yi nga xamante ne am na tamit euh, ci compétition bi mu doon également donc xale boo xam te ni c'est un garçon très prometteur comme j'ai l'habitude de le dire parce que bu ñu ko gisee mu joué rek xel yi day dem ci ndaanaan yu bëri ku si mel ni pas Malick Diop ku si mel ni aussi Roger Mendy donc euh, vraiment mu doon aussi ku am jom parce que wax na ba benn instant sax xolam xaw a tooy rangooñam dal dëndam mais loolu yëpp day wane ne xale bu am jom la te tey mi ngi liggéey am na fu mu teg bëtam donc di leen sant di leen gërëm rek aussi di leen jox rendez-vous prochainement